Thank you. Ousmane Sonko la ñuy desandi ndax bis ni tey nëgë ni daaw moom usman Sonko daal di rek génnoon ci presse bi wax rek euh, gannaaw ba ñu joxee résultat euh, élection euh, législative yi ba noppi ci la daal di génn rek daal di ne daal moom dafa fas yéene samp ndëndam dëggal boppam ndax gisoon nañu la ñu bindoon ci fi mu taxawoon focus 2024 dañuy dem léegi ci pàttaliku bi dellu siwaat fukk fan ak juróom-ñett weeru août atum 2020 Ousseynou Diop moom nag taxaw na ca chambre criminelle bu Dakar ñu koy àtte tuumaal ni moo faat euh, taximan bii di Ibrahima Samb ñaar fukk fan juróom-ñaar tribunal jàpp ni kon dëgg-dëgg moom mi moo fa tax ba ñu tëj ko kaso fukkaat ak juróom fukk fan ak juróom-ñett weeru août atum 2018 si la père Dominique Kata génn àdduna amoon lu toll ci juróom-ñeent fukkaat ak ñaar mu bokk ci ñu samp abbaye bi di Kër Moussa nekk ci région bu Thiès te ñu inauguré ko ci atum 1963 fan juróom-ñetti weer août atum 2018 si la Kofi Annan génn àdduna nekkoon diplomate homme politique ghanéen waaye jot a doon secrétaire général lu ONU. fan juróom-ñett ci weer août atum 2016 ca Espagne am attentat gu ñu amal ci ab oto lu toll ci fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan lu ëpp téeméer jële ci ay gaañu gaañu ca fa ñu duppee Rambla de Barcelone nekk ca Catalogne. ñu taxaw ci fukk fan ak juróom-ñett weer août atum 2022 ndax si la Ousmane Sonko amal génnam gu njëkk gannaaw ba ñu fësalee résultat yu tukkee ci élection législative yi ci ayu bés bi ñu génn moom mi ci jàkkaarloom nga xam ni kon mu ngi ko doon amal ak askan wi xam ne ni dina doon candidat ci élection présidentielle yi ñu naa amal ci atum 2024 noonee mu tëral programme ba nga xam ni moo ko yóbbu ba ca date boobee nga xam ni kon war nañu amal élection yi ñu lu ci Amadou Ba bokk ci parti Pastef ba woon. heure bi daaw le président Ousmane Sonko lancé woon le concept Focus 2024 Focus 2024 nekkoon li nga xamante ni mooy prépare parti Pastef ci élection présidentielle bi 2024 yi ndax umpalewu leen ni euh, pour la première fois depuis Sénégal moom boppam guléet ñu soog a am président boo xam ni sortant du bokk ci élection yi permettre donc. à à que citoyens yi ak électeurs yi mën a tànn un président sur la base de son programme euh, kooku moo doon vraiment jubluwaay bu njëkk bi li ci topp mooy focus 2024 bi dafa nekkoon aussi une révolution au sein du parti ndax dañoo changé waat structure yi pour mën a adapter dimension bi parti bi am au niveau national ak international ñu ut ay structures yoo xam ni soo plus adaptées te ñu waroon ko lancer ci euh, congrès li nga xam ni moo ci amoon beneen am solo mooy focus 2024 bi moo doon dajale boroom xam-xam yi nekk Sénégal ak diaspora bi ñi bokk Pastef ak ñi nga xam ni ay boroomi xam-xam ay universitaire ay économiste ay chef d'entreprise yoo xam ni bëggoon nañoo jàpp ci projet bi ndax ñor na leen ñu tëggaat le programme rénové le programme Sonko 2019 en tenant compte de ñaari mbir yu fi jaar yoo xam ni kenn mënu ko umpale muy Covid 19. ak dëkku pétrole Sénégal bi nga xam ne am na pétrole ak gaz loolu yàgg nekk yittey Pastef nii gis nañ ko waat démb mooy wane ni jànguñu ci dara bu ñu demee ba soble di jar juróomi junni saaku bu ñu demee ba sunu doom yi di dee ci géej gi ci lu metti ci nit ñi ñu fàttaliku ni Pastef projet mooy fexe ba lii askan wi moom ñu delloowaat ko ci askan wi suñu alal kenn bañ ko fee génne Ousmane ko président Macky Sall jàpp na ko il est clair que Pastef président APR di Macky Sall tas na ko mais loolu yàqul dara ci projet Focus 2024 bi euh, insha allahu rabbi coalition Sonko 2024 président Ousmane Sonko moo koy porté mu nekk ci biir kaso bi wala mu nekk ci biti bu soobee yàlla candidat la ñuy doon pour élection présidentielle 2024 aywa Chérif euh, euh, Ousmane Sonko li mu nekkoon ni yéeneem euh, ci déclaration bi mu defoon nëgë ni daaw la woon mu mel ni nag boobaak léegi lu bëri xaj na ci tubaab naan de l'eau a coulé sous les ponts. waaw parce que doon na doogoon génn ci ay élections législatives yoo xamante ni coalition Yewwi Askan Wi. Hmm. nga xamante moom Sonko moo nekkoon quand même le leader même si mu ci doon dem assemblée nationale ndax seen liste ba conseil constitutionnel da koo invalidé woon ndax ñàkk par rapport suppléants euh, yi ñoom ñoom mujj dem fa la nga xamante ne mooy ca assemblée nationale bi ci paree nag euh, xëy na après mu def lecture bi xam ni. c'est lui quand moo nekkoon locomotive yi looloo tax quand même ñu dem ba am euh, ay députés yu bari bi ñu ci àndee ak waa ak yeneen coalition yoo xamante ni moom moo tax ñu mujjoon a am ci assemblée nationale. Mm-hmm. finalement ñu def seen focus boobu mu ngi rek préparer élection présidentielle yi comme li nga wax bi nga xamante ni mujj na koo Pastef quand même euh, mbir mi day changé waat. Mm-hmm. Amadou mi ngi koy wax je pense que même kum bu Sonko bokkut bon Pastef nag yàgg euh, yàgg ñoo gëm ni ay plan B xam nga doon wax danaan Ousmane mooy seen plan A ba Z. Mm-hmm. mais je pense que mbir yi la donne a changé et mu changé quand même ni ñu ko waxee ni bu fekkente ni quand esprit la. Mm-hmm. il faut ñu jéem a xool ñoo xamante ñi ngi ci seen coalition boobu kun mën a jiital koo xamante je pense que mooy gan parce bu fekkente président yoo xamante ni la daloon PDS gis nga ko. oui voilà dissolution waaw. moo tax PDS xam looloo leen fi daloon ci élection ak Karim Wade. Mhm. finalement mujj ñoo bokk ci élection yi boycott lañ moom mhm. la Ousmane Sonko doon def discours am boobu mooy bi ñu génnee ci élection locale yi. Mhm. Euh, boobu aussi dafa def euh, li nga xam ne moo di. pré campagne. def campagne wër réew mi. am pulsion askan bi mu am aussi benn cote de popularité. bu nga xam ne ràññee nañu ko ci euh, ak ferveur populaire bu nga xam ne ràññee nañu ko ci ci période boobu. fépp fu mu dem ak lu mu guddi guddi askan bi dañ ko doon topp. Euh, ci la natt boppam xam ne nag fi mu nekk nii jot na mu dëggal boppam samp ndëndëm pour jëm ci élection. Euh, deux mille vingt deux mille vingt quatre yi ci la wax ne ñi nga xam ne ñoom la àndaloon. yoon li leen boole woon ci élection yi nga xam ne la ñu jénn la woon waaye waaye dafa am ay charte yu tënkoon intercoalition bi ak coalition bi mm. mais buñ ca jógee nag bi muy def discours bi. boobu c'est au non de PASTEF parce que waa PASTEF rek ñoom ñoo fa nekkoon. Eh mu samp projet bi focus 2024. Hmm. jëm ci li nga xam ne moom mooy élection yi. pour hmm. wane ni rek ni moom gëm na ni. Hmm. bu demee élection yi dina dina dina ci am ndam parce que askan bi war nañ ko seen bopp. ñoom dañ ko doon topp di ko xaar te joxu leen dërëm kenn ku ci nekk au contraire nit ñi dañu doon cotiser sax di ko di di ko di di ko di ko di ko dooleel moom ci boppam mais malheureusement. développement avec le temps hmm. ak euh, option bi nga xam ne jël na ko ci wàllu résistance ak euh, mortal combat ak euh, cooki fin ak lu ni mel dem na ba egg fu nga xamante ni tey état wala boog justice daaneel na ko hmm. daaneel bu nga xamante ne nii mi ngi ci kaso bi mais ba léegi présomption d'innocence dafay peser wu ci moom hmm. donc tant que wuñ ko définitivement Ousmane Sonko peut être candidat mhm. et il encore éligible. merci beaucoup Malick Thiandou mu nekkoon un jour au Sénégal un jour dans le monde Chérif nga baal ma ñu dem ci xibaar yi. Euh, ci euh, gàttal ak Cheikh Tidiane Diawo.